jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di bu baax baax di leen seen wàccuwaay di leen wax na tey nag ñoo ngi fii bii wasaare ci émission bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo su mu nee jàmmaarloo nag mbokk yi xel yi dem ci fan si waaye bu mu nee jàmmaarloo xel yi dem ci ñaari mbër yi nga xamante ni ñoo nekk ci digg géew bi di jëflante seen biir tey nag na invité ki nga xamante ni nii mooy Papa Kane de ak ki nga xamante ni mooy Ameth dem numéro de mbokk yi ñoom ñaar ñëpp ñoo ngi woowee caaro yi ñëw tey ndax euh, ki nga xamante ni mooy Ameth dem dafa woon day ak ki nga xamante ni nii mooy Baaba Maal ñoom ñaar mais nag xëy na peut-être baam ma amul loo xamante ne xaw na ko empêché boobaa ak léegi moo tax ñu boole ko ak ki nga xamante ni mooy Papa Kane bokk Kane mbokk yi bëri na fi combat bu yàggul digganteem ak. Pokola Pokola kii Faalaay Balde ñoom ñaar ñu bëri combat bu neex combat bu yàgg combat bu métti combat boo xamante ni kii euh, Zako Balde ko andi Zil Balde andi ko ah, moom Pokola moom mii di Papa Kane Reug ak andi ko waa Thiaroye gépp ànd ak moom. keroog ñoom ñaar ñu def ambiance bu neex boo xamante ni ci biir géew bi mais après dama cee gis yoo xamante ni dinaan daa ñu nuyoo parce que boobu bi am na yow ba yu bari yoo xamante ne dencal naa ko keroog euh, mu mu woon koo def te defu ko xaw ma dafa daw xaw ma dafa mu booy bi yooyu yëpp dinañ ci ñëw am na dem tam moo ngi am moo ngi am booy boo xamante nii waykat bu mag bi Baaba Maal bu baax maa toogoon fii nga xam ne <laughs> li gars yi doon naan ku mos jàkkaarloo xam ne jëw dàq bu baax maa toogoon fii nga xam ne jëw moo dàq foofu jàkkaarloo hmm. ma bàyyi la nga nuyoo Papa Kane. waaw nuyoo ñu dem. salaamaaleykum waaw. Ousseyn maa lay nuyu. Hmm. di nuyu sa caméraman yi di nuyu Ahmed Deme. Hmm. di nuyu sama ñaari gars yi ma àndal mi ba ma ko ak Boy Reef. foofu nga yem ci nuyoo foofu laa yem waaw. Ahmed Deme nuyoo ñu dem. yëkkati micro bi yàlla indi si yonent bi sant sama ñaari waajur di mm-hmm. ñaan sama waajur góor yal na ko yàlla yërëm xaar ka àjjana mm-hmm. sama dijaa ji Mbouane maa koy ñaan yàlla yu wëral ay cëram mm-hmm. di nuyu tamit caare gi mu bàyyi yëpp di nuyu yow di sa gis dama gis dama gis Ameth Deme boo bëyee tey balaa nga bëyewaat dafay xaw a yàgg waaw parce que loolu ginnaaw yàlla ak bi si adversaire tamit parce que dañ wax adversaire ba kooku pare man ma pare le temps ñu demaat tuuti moom mu ne mënatul a bëre quoi. dañ lay woo proposé la ko. woo ko proposé ko mais dañuy dem ba ci biir ñoom ñaar ku ci nekk ne bëggatuma wala boog affaire yu demee noonu. waaw parce que adversaire bu ki ma def feebar. loolu xaaral moom tane. ah parce que ñun ay ndaw lañ parce que boo toogee gars yi boo compétit rek dañ lay fàtte quoi loolu moo tax ñu obligé mujjee jël baaba maal bañ a toog xaar. Mhm. waaw. mais man lu ma gënal kan ma njëkk a proposé kooku laay bëreel quoi. Mhm. mais yàlla na ko yàlla fëgg boppam ba jugaat ci kàttanu yàlla. Euh, léegi nga nga nga dugg ci Baaba Maal. Mhm. nga dugg ci Baaba Maal. ñaa ci ñaata combat. am naa sept combat. sept combat ñaata bu métti. waaw. combat bu métti mu boobu foofu daj fay coono yu métti. bëri ak moom ba yàlla def si dernier moment yi daal bu temps bi des deux minutes. si mhm. la yàlla def ñu daan ma. mais lan moo sa diggante ak moom xeex bi bàyyi woon. waaw boo parce que dana woon man damaa daw yow moom moo amoon blessure bu métti. dafay que daw ngeen njëkkoon jàppoon combat bi nga blessé. a jàpp combat ma daal di blessé ñu jàppaat ko ma ñëw nag léegi nag fukki jeunesse boobu noonu ma xaw kaa mer si combat bi loolu moo tax ma andil ko xeex. ak bëre bu métti moom dafa dem sama ba dafa bàyyi xëy na yàlla suñu borom moo ko dimbali rek jour boobu noonu waaw te man xam naa li tax tamit li ma daan ko waa xam naa ko parce que boobu jàppoon naa confiance su ma nekkoon tamit ma def ni mbëri toog gérer sama combat parce que deux minutes moo desoon si temps bi. Mm-hmm. bi ma tikkee sama ngémb loolu la ma sama gaay wax. Mm-hmm. mu ne nag dogalu yàlla suñu sunu borom xëy na damaa waroon a daanu rek nañ defarwaat après si lañ jël toujours pare ñëw yàlla mayaat ñu ndam ñu si dynamique bi. waaw ba yàlla defaraat tamit ñu amaat beneen grand combat ñu koy sant yàlla rek xëy na kon affaire mu ngi neex mhm. waaw. nga dugg ci Baaba Maal. waaw ah, Baaba Maal xam nga li tam ma jël ko tamit mooy ma rek bañ a toog rek waaw bañ toog mais ku ma xam xam dëgg xam ne dëgg yàlla Baaba Maal man ak moom du làmm parce que dafa am ñu ma war a dabu ci si kaw moo tax. Hmm, dafa am ñu war a dabu mhm. yow yaa ngi ci ñaari combat. man maa ngi ci trois victoires benn défaite. benn defet wala ñaari defet. benn defet moo nekk sama palmarès. kan moo daan. mbër boobu nga rek mbëri moom dañoo bari yaa ma gën a xam. Hmm, kan ak kan nga daan. man daan naa limousine ak euh, hmm. moo daan. ma daan maa ko njëkk daan par quatre appuis. arbitre attewul ma continuer bëre. xam naa ne loolu aarama dinañ ci jàppale euh, hmm. après wan ñu ko ñu xool. mais yéen ab bi dafa sifflé ngeen xeex xeex bu métti yow ak moom. si noonu combat bi noonu la ma doon demee parce que avant combat bi coow li bari mhm. daanaka avant ñu dugg si géew bi xeex bi commencé na. bu dee yaa ngi a a andi ne affaire mhm. a ab bi dafa sifflé ngeen liwaatoo yéen ñaar yaakaar naa bi mu la bi ngeen xeexee da la touché. damaa touché damaa jël ko sax xeex nan ma jël ko ma arrière pour mën a nekkaat ma ñëwaat parce que su ma jëlaatoon. da nga daw non damaa arrière daw. du ma daw non. nga arrière. arrière nekkaat arbitre ma jàpp ko duma ko duma yu di ko yóbbu aar mi dama ko ñëw. lu ko mbër mosul a def laa ko parce que bi mu la bi mu la ba nga génn. Mhm. bi ngeen dellusiwaatee ci digg géew bi bi ngeen xeexaatee ñu ci bëri dañoo gis ne xeex bi yaa ci ëpp avantage. si non parce que moom day waaxuwaatee sa maanaam moom. da lay jaay jikoy bandi da bu jeexee pare na combat bi su yàggoon dama koy duma ba mu xam. mais dafa daw bàyyi xeex bi ñëw bëri si. mais après bi ngeen gis ngeen ne yaa ëpp si xeex bi gis ngeen bëre bi tamit moom commencé na sonn mais dafa mel ni da nga da nga da nga da xawoon téye sa bopp. no si parce que li tax li tax nit di song nit. Mm-hmm. mooy xel. li tax nit di song nit. mooy xel. Mm-hmm. te amaana ba déggee ñu ne mbër mi dañ kaa si musique wala lii ak lii. Mm-hmm. maanaam la tax mu war a def moo fa nekkul mais man ku ma xam ku nekk bëri nga ma xamee. Pokola mhm. billahi wala taala su ma ko jàppoon dama kay daan jël bu rëy moom nag na sant ñi koy ñaanal bu baax a baax. Mhm. parce xam ne combat bi ñàkku si ñaan. Mhm. man it ñàkkuma si ñaan mais moom sant bu baax. waaw parce que combat bi nañ kaa jàpp ma bàyyi ko fi dem voyage moom mu topp média yi Papa dafa daw wax lu nekk mu ñëwaat kon nii rek la mënoon a demee te ñi ma xam dëgg jigéen ñi ma xam na ne combat bi parewu ma carrément. ñi xam dëgg jegeñ ma. Mm-hmm. xam na ne combat pare ma carrément te su ma pare woon dina gis leneen lu gën a pire kooku laa man ak moom yamuñu si dara day jéem a teg bandi di waaxawaatee loolu yeneen bëri la kay def ñun ay lébu lan dañoo yàpp dem leen ngeen bëri ñëwaat mu soo dégg làmba yàqu na siège ñu ngi koy yàq supporter lébu yi ñoo koy def amul. lu ko dalee Yoff wat Mbuur fépp fu lébu yi nekk laay wax. ma soo kaa dégg te doo ko mës a dégg. mais ban ban ban ban moment ban moment nga jàppanteeg moom. jàpp na chute am na foofu. première première action bi damaa jël di ma dëj mu demee ba suuf ma def rotation tournée mu teg kalaapi. moom def na kalaapi def na kalaapi ba ñu jël recours bi génne oonam ñu ne ñu yéen lañ jox man. jox nañ la jox nañ la victoire bi jox nañ la victoire bi bi mu ngi si man moom xam na si dara. xool na bi bi moment bi muy yëpp sant yoon nga ne foofu daanu na. jug naa ba daw ba talal sama loxo mu daw topp ma. arbitre kay moo def lu ko neex parce que semaine yi passée combat yi fi jaay yëpp ne gis na arbitre mais jug naa mais est-ce que naa ko woon ci bëy parce que loolu bi mu amee. Hmm. bi ngeen bëyewaatee jëlaat na sa tànk. waaw nga bokkoog tànk bi. est naa ko woon. non damaa naa ko ba pare damaa sóoraale xeex bi de naa bëri bi parce que boobu maa ngi si xeex bi moom xeex la daan hmm. bëri na ñaari combat dóor nit mu daanu. bañ na xam bi may jëlee avance bi am na si ñoo xam ne lan ma doon wax waroo woon a jël da ngaa waroon a xool keneen ndax lan li mu teg la ay kaawoo mais ñu dugal ay doomu aadama lan comme moom man ay doomu aadama comme comme ñooñu yaa dégg moom waruma war a man a humilier non man nag maa ngi ñaan yàlla yàlla naa bëre ba bàyyi bëre du ma dóor nit mu daanu. loolu nga bëgg. rafetlu ma ko xaw ma nag luy am si làmb ji mais man rafetlu ma ko. buñ la dóoree nga daanu. ma xam ne yàlla moo ko dogal mais man yàlla bu ma dóor nit mu daanu ma jàppale daal ne moo ma gënal. gis nga ma jàppale daan la moo ma gënal euh, su ma ñëwee ci yow sa diggante ak Baaba Maal nekk na mbër mu mu am caay-caay nekk na mbër mën a neexal nekk na mbër boo xamante ni day jaay bés te mbër mu a bëri la nag xaw ma xam nga ko mu waa waaw man loolu laa bëgg waaw parce que su ma seen chaque jour ah ki may dajee rek day doon daanaan parce que boo doonee boo daanee ngay doon daanaan. Mm-hmm. waaw bu may bëri koo xam ne daal man maa su ma seen sax mu ñu naan kii kat mu ëpp kii ay qualité quoi man foofu laay gën a sawar mm-hmm. waaw. mais Baaba yàlla defee jàmm rek mooy ko wér mooy mu wér le ma laaj moom sax ma sa waxtu naa ma parce que dañ maa tegal mu ñëw wax ne ma ñaar ñi daal mhm. ko man amuma problème mu adversaire ñoom ñaar ku si nangu baax mhm. moom maa ngi gis mu mun naan ni dimbali ma ngir yàlla mbër jël ma di reetaan. Mhm. xam naa nag lam yaakaar ak lam fekk bu soobee yàlla. bi lay wax loolu gis na la. dina ko nax de booba gis na ma waaw. maa nga gis boog entraîneur am ndeysaan entraîneur bi tamit mu ngi ree. am ngaaka la foofu waaw kay du ma ko nàndal sama bopp nag damay jàpp am ngaaka bu ñu dugg si géew bi. moom nag si kàttam yàlla li ma waxoon kii toujours pare loolu laa koy wax. samedi la ñuy bëre. waaw si kàttam yàlla mun dimanche laay sóoraale sóoraale wu ma samedi. te moom bala moo comprendre dimanche daa jot ba mu toog ba war a yeewu ba ndékki foofu lay comprendre. mais mais est ce que foogoo ne dafa la dafa xaw a kii moo tax ñëwul tey. waaw peut être tamit loolu mën naa nekk. mais li ma koy ñaanal mooy yàlla na ko yàlla mooy wér rek jàmm tey quoi. Mhm. moom ma comprendre dimanche daa jot jour combat am na seen bombardier xam nga ñu ñooy bëre ñu ñooy bëre samedi ñu ñu bëre dimanche. Mhm. si kàttanu yàlla bu yeewoo nag ba war a jàkkaarloo ak ay waa këram. ci lay comprendre. waaw ci lay comprendre. fi mu toll nii ñaari séance ngay man moom su ma la waxee dëgg rek ñaari séance la entraînement. suba ngoon. waaw. suba ngoon waaw damay dem salle entraîner su ma jugee salle ngoon ma dem contact. waaw ñaari séance rek laa entraîné wax dëgg yàlla. doog ko teg. kon ko teg waaw. yaa ngi xeex. dégg man du ma bàyyi dara man supporter da naan dimbali sax ngir yàlla combat bii nii bu loxo yi bu mu jóg. waaw ñu ci bàyyi nag euh, dañuy dañuy jàpp ne sa combat dafay métti. dafay bàyyi xeex. Hmm. est nekkul loolu bokk na li tax sa combat di yéex. waaw loolu tamit mu ngi si quoi parce que adversaire ndeysaan koo si ne am na dem nañu tamit bu jëlee combat ba si yàgg bu demaatee si day bàyyiwaat de maanaam nag faw nga xeex ak moom de ba maanaam dafa saf de. non manu ñàkk. Hmm. manu ñàkk xaw ma am ci moom bu moom yàgg moom. xawam la ci cin de noo def kay faw nga faw nga tëmbal ko ci. non bu dëggalee boppam moom si kàttanu yàlla lii maa ko wax moom. bu dëggalee boppam moom càmmaarloo. Hmm. dama koy mu wàcc. mën ngaa dóor ba maam mu wàcc. déggoo lu ma la wax bu ñuy wax ne moom moo nekk si moom dëgg-dëgg. Hmm. non bu mu dóor wàcc si kàttanu yàlla ak bi. gis ngeen bu taxawee dëggal boppam mu dóor ko mu wàcc yow nga ne fi mu toll nii euh, fi mu toll daal féetewoo nga ndam bi. non féetewoo naa ko waa CNG jox nañ ma ko parce que ñun dañoo tënku si si yoon. mais est ce que ko tamit mu mu leer wëlbët gaañ est ce que loolu gënul woon. moo dàq fuuf loolu moo dàq fuuf mais ñun dañoo tënk si yoon bu saison bi tëjee dañuy def loolu visite contre visite. Mm-hmm. nga ñëw déposer licence boo ko amul doo bëre. Mm-hmm. kon si ndigalu CNG dañuy doxee. bi combat bi jàllee ñu xam ne kat si am na ne nanay rek sax moo génn xaalis au pair la ñu dugal recours. Mhm. yaa may dégg bi ñu dugalee ñu toog une semaine ñu ne recours bi génn na yenn a amoon victoire bi kon si yoon lañ nekk ñun mais amoon ndam sa làmba ji yóbbu ko sa nag dara daaxu ko. Mhm. mais xëy na noonu la ko yàlla tuddee parce que ñun ñaar ñëpp ku si nekk bu ëndee ndam tamit noonu lay demee. Mhm. waaw mais nag di ko xamal ne lenn moom Pokola moom. dix combat man ak moom. du rëdd benn dégg naa ko nag muy wax nee na bu ñimee man su ma ñimee ñu wàcce man ak moom lit simple. Mm-hmm. mais mën naa kaa jàngal bëre di ko wan nag sama avance écrit fàllaay laa koy bàyyi. ah mais moom nee na avance am foofu la koy bàyyi. ndax naka man sama gaal écrit fàllaay laa ko ser booy fa nekk yëpp ku si ñimee jël sama avance na ko jël te su ma sañoon soo ko balde mooy jël avance bi ma duma ko daan ko parce que li ma doon def jour làmb ji dafa ma metti. lu mu la def dafa këpp samay bagage di ko sànni di def ay affaire si biir làmb ji te man rafetlu ma lool bu fekkee dañuy woote dëggale si moom na jël sama avance. ma duggaat si kër googu jàpp ko duma ko daan ko. Jacob nag combat yu métti rek lay bëri. waaye Jacob ma Jacob bëri ma ñu kere mënu koo daan. non mais da koo duma. da koo duma làmb ji nu mu mujjee. moom la laa la wax làmb ji di niil noonu man moom la jox ndam déedéet. yow fi tàppale la def foofu ma jëlee dinaa ko duma daan ko te man ak moom fu mu dajee si mbedd mi combat bi fa lay commencé jëm si biir làmb ji. déet déet déet te ngeen bàyyi bañ fay leen rek. Hmm, fay. booy dañuy jéem a teg bande bi jaay affaire piqué ñun caare lañ dëkk de ñun ragaluñu loolu. ala lébu ala lébu ay lébu pire lañ <laughs> naan man nii jël avance bi avance bi si kii ma laa koy bàyyi promoteur bu ma seet si naa daal dama jëlee ma adversaire foofu noonu ku ñëw baax na moom Jacob nag laa gën a soxla mu ñëwee ma tekkalu metti waaw. gis nga Jacob laa gën a soxla bu ñëwee ma tekkalu metti naka ngay waajee combat mu toll nii mobilisation defe naa ne la. waaw. naka ngay waajee combat bi. non échange moom ginnaaw yàlla ak yonent moom pare na. parce que noppi waaw man la ni xaar. bés bee nga daxaa mu jot. kase waaw ma ànd ak fukki penc yi ñaar lépp yëpp. waaw ngor man la ñuy xaar ma ñëw jàpp Baaba Maal yàlla ak yonent bi daan ko bu ko caara mu nekk nii ñëpp pare na man fu ma tourné mbir yow la ñuy xaar ma ne bu dee man na seen xel dal si kàttanu yàlla waaw. fu ma ko jàpput doon koy seddi. boo amoon kàddu yu mujj lan lay doon. waaw di oo waa caara yi fukki penc yeeg ñaar yëpp képp koo xam ne ab lébu nga rek. Mhm. man maa lay woo nga ñëw nga jàppale ma si bis bi. di oo monsieur le maire maa ngi koy bu baax maître Ndiaye di oo tamit Ndiaga ñaa parce que suñu mhm. ak ku si mel ni Ali Zuker Ali moom dañuy jàppale bu baax. ak njóogu bu baax Ablaye Gueye ak papa El Hadj moom damay jàppale bu baax a baax ba si bëmm ko mi toog ak reef. Mm. waaw di leen oo di woo Papa Mboy Ablaye Ñang képp kuy taxaw si bopp gaar rek. Mm. di bàyyi lu booy rek maa ngi lay oo moo xam nga dëkk bari ñi ñangal tamit duma ko fàtte ba jalaaw maa ngi oo ñëpp ñu ñëw ñu jàppale ma di gërëm tamit koo xam ne kenn la si man mooy Ablaye Ciss. Mm-hmm. moo ba jël teg ma këram ak jabaram ak njaw ak sama maam siis moom mooy defaral reer di ma defaral lépp. grâce à papa Youssou Ndiaye tamit ak jabaram xaar. ñooñu ba Italie ñooñu maa ngi leen di sant di leen gërëm. yow aussi njabootu Baye Mbaye si Ndiaye daal yal na leen yàlla defal jàmm parce que gis naa ni mooy taxawoo quoi. ak sama gars yi waa xale tey fàttewuma kenn ñëpp maa ngi leen di gërëm. waa Jogomaay tamit aw mu seen fay waa Jogomaay victoire bi si kàttanu yàlla ñoom laa koy may te combat bi seen daan si kàttanu yàlla. bisimilah incha allah damay daan. koo waa Caare gi gépp Baaba Maal di ko ñaanal jàmm rek waaw nga ñëw si jàmm ñu daal na si jàmm damaa ñibbi si kàttanu yàlla waaw di gërëm sama mag sama yaay tamit Ndeye Ndiaye Cheikh yi Mboy Guèye Ndeye Fatou <laughs> Fatou ma kenn waaw. gis ngeen mbokk yi loolu la tàggatoo soo amoon kàddu yu mujj bëgg naa nga limal ma ñaari adversaire ndax sa digganteeg Mbagnick. waaw làmb daaxu ko. dëgg la sama digganteeg Mbagnick làmb daaxu ko moom su paree tey tey man pare naa boo ma joxoon avance bi ma yóbbaale ko nga dem xoolal ma Mor Kankang rek. Mor Kankang mel na yaa ko ñeme wax <laughs> ay mbër lañ comme man samay morom lan. Mm-hmm. te maa leen man maa leen ëpp doole. xëy na coow làmb ji la rek. amaana man li may bëre di ko compétir ñoom defuñu ko. Mm-hmm. mais ku si ñemeñ laal boo jëlee sama avance pare naa pour bëre ak yow. mun nga fa jaay tàggatoo waale. waaw xam nga rek di sant sama gaay ku si mel ni booy reef boobu gaay ma xam nga. di sant sama waa koñ bu baax a baax parce que su ma jógee dañuy jóg surtout ma amee dem Baye Mbaye capitaine xam nga ñoom rëg-rëg booy daal maa ngi sant ñëpp waaye kii bi ñoom Baye Talla daan jóg bàyyiwuma kenn di gërëm nag ñaari waajur bu baax a baax ak sama waa Gàlle maa ngi sant bu baax di leen gërëm di gërëm Papa Ndoye amuñu fayam kooku day sonn si ñun day jàpp suñuy combat waaw. gis ngeen mbokk yi ñi lay demee ci jàmmaarloo tey Papa Kane numéro 2 laa dalaloon ak ki nga xamante ni mooy Ameth Deme moom daa jóge ci combat bi mu fay mujj bi mu fay jóge ci stade ba euh, Pokola la jox ndam waaye bi mu defee recours am waa CNG xam nañ ne moo daan bañ jox ci ndam li delloowaat ko ko ñu koy ñaanal euh, yàlla na amaat combat moog ñeneen lu yàlla dogal mu xam ne la kii nag moo ngi dajee ki nga xamante nii nii mooy Baaba Maal combat la mbokk boo xamante nii combat bu neex la yaakaar naa le vingt cinq le 26 le 26 mars ngeen bëree le 26 digganteem ak Baaba Maal Baaba Maal fa ba tax na nag ñoom ñaar mu jee daal bëgg waxtaan ak ñoom xëy na euh, Baaba Maal dina dina dina fi ñëw ñu toog gën cee waxtaan dafa am loo fàtte. waaw Marème Ndiaye laay gërëm tamit Marème Ndiaye ak Ndeye Diaw waaw ñun tamit dañ may jàppale bu baax a baax. billaahi di sonn si man. Mhm. yàlla ko yàlla defal jàmm fa mu nekk ak mbooloom jullit. gis ngeen mbokk yi noonu lay demee di leen jox dig daje beneen yoon ci wasaare ak yeneen ba ci jàmmaarloo yaa ngeen jëf.